waaw maanaam su ma la su ma lay déglu rek mm-hmm. man dama am geneen teewlu gurul xasida gi mm-hmm. Mm-hmm. waaw daanaka li may gën a dimbali loolu ci la bokk man moom rek laay déglu nga xamante ni su ma ko dégloo yenn saa yi damay ànd ak moom ànd ak moom di ànd ak son bi bi di ko déglu di ko déglu su ma noppee nag damay fay son bi déglu sama bopp jàng di ko jàng jàng ko su ma ko jàngee jàngaat ko rek yàlla daf ma ci defal xaas. fi ne nii air bi may jàng a Massamba bi xam naa ni man naan la. bi ma ko commencé jàng yàggul de. yàggul da yàggul de. Mm-hmm. bi ma ko commencé jàng yàggul de fan yii la ma dikkal rek. Mm-hmm. man yenn saa damay tekki-tekki rek air dikkal ma. may mm-hmm. may ma ma jàng. noonu laay jàngee nag noonu. air noonu laay jàngee xasida. ndax sëñ Modou Fall danay danay jàng njàngum aw wala rajas rek. waaw daanaa ko def. daanaa ko ko def ndax programme bi ma lay wax nii. waaw ba ma cay dem njàngum aw laa fa doon jàng. keroog laa jëkk a njàng njàng aw moo xam musuma kaa ma àndal musuma koo répété keroog laa njëkk a njàng njàng aw moo xam musuma koo répété waaw ko def bi ma ji ab laa Seye Gueye nag mm-hmm. laa bàyyi njàng aw mais daanaa njàng njàng aw aw moo xamante ni xaadim Gueye laa ci daan roy mm-hmm. wala Mara Seck macha allah waaw ah. jërëjëf jërëjëf Serigne Modou Fall incha allah rabi xam naa ni eh, dinañ ñëwaat eh, ca kanam tuuti ci yeneen air ndax xam naa comme ni nga ko déggee air bu ci nekk dañ ci jaar tuuti rek barkeelu ci daal di ñëw eh, Serigne Modou Fall université ci sa biir wax mu mel ni dégg naa nga wax ni maanaam jafe-jafe yi nga doon dund yu ci bare bari mi ngi jeexe ci université bi waaw naka nga def ba ñëw ci li nga xamante si moo di université bi waaw université bi nag sëñ Jenne uh-huh. damay wax ne fi ñëw ci condition yi metti laa fi ñëwee waaye sëñ Tuubaa dama lay damay ñi may bàyyi xel uh-huh. dinaa leen wax tuuti ci sëriñ Tuubaa uh-huh. ak ni muy dimbalee ni muy dimbalee ab taalibe bi may ñëw ci université bi day dama nekk ci jafe-jafe yu metti waajur yu wéere yi tëdd ñetti at bu jigéen bi ma yàlla desaloon desaloon fii ci kër gi boobu maa ngi ndakaaru nekk ci santé yi ndeysaan di taqale rek nga xam ni booba man sama waajur àggoon naa ci may nekk ndakaaru mujj na santé yi xaw a dëgër dama daan bàyyi ba guddi ma sol saabte ni di wër géejawaay koy ngàcc lu foos nga xam ne maanaam chantier yi nga nekkoon chantier maçon la woon. chantier la woon. Mhm. waaye booba yenn saa dangay toog doo am doo doo mën a xëy doo am chantier. wala mhm. doo gis ku la jël journée. Mhm. nga liggéey taxit mënumaa tëdd. ndax bàyyi naa waajur ci kër gi. ak njaboot gi. ah bu ma xëyee ma yor sa peel ak sa pik. su ma gisee koy ngàcc lu foos. wala kuy gastu dara. ma gasal la. ngàcc naay foos ba taayu ndakaaru gi. dama faa dellu yéemaat sëñ Tuubaa ndax dañ maa invité euh, yaakaar naa Touba TV. Touba TV. bi ma demee ki nga xam ne moo ma jël si ci otoom jël si ma bi ma wàccee Ndakaaru mu jël si ma yóbbu ma këram sëñ bi berndeel ma dem jëndi garaam bu bu bés taq desineer jox ma sol daal otoom yóbbu ma télé ba mu xaar ma ba noppi indiwaat ma teraanga ma noppi mu yëkk teraanga ju bari jox ma ma yéem sëñ Touba ma ne pourtant fii di am naa fi guddi yoo xamante ni eh, ku daan ngacc foos ak di fanaan biti tey tey tey ñu dugal la foo xamante ni macha allah waaye nag sëñ Tuubaa moom eh, dafa nekk koo xamante ni tayam dina day gàccal démbaam wallaay la xasim damay damaa dugg ci oto bi sol garaam bu jëm tuub tele ba waa di ma yóbbu danaan ma loo bëgg waxal ma jàdd fa wutal ma ne xoolal rek danaa toog fii du ma am sax fukki dërëm yu ma jëndee kaasu café waaw nga xamante ni daal mu metti lool ma dund lool nag coono yi metti yàlla dogal université it li ma fi dugal dañ maa génnee hôpitalu Ndaamaatu nga xam ne ma faa nekk weer ak nangam ak sama yaay. nga xam ne fa nekkoon ak moom. waaw dem ba amatuma lu ma jënd ordonnance metti te maire bi tanewul docteur ma comme dañuy bañ mu gën a metti da koy génne. ba ma yóbbu ko kër ga dem taqale ji waat dara ma leen du ngeen ma dimbali bàyyi ko fi rek may may wuti di ko indi di wuti di indi lu ma am indi ngeen fay mu ma néeg bi nga nekk yaa ngi fay fay bis bi ne junni amatoo ko ordonnance yi noonu day gën a metti rek ñu génne ko ma indi ko tiim ko toog toog ci kër gi nag tiim ko mhm. tiim ko tiim ko daal ma sama yaram bi daal taw ma ñeewante ko daal ma ne ko man de du ma demaat Ndakaaru munu maa munu mën a war a gënaat di delluwaat Ndakaaru léegi bàyyil ma jël abal ma ñaar fukk ci sa wéccet bi ñu la doon seete ma paas si dem université ba ma lay nettali sëñ Tuubaa mm-hmm. bi ma ñëwee ma dugg ci biir laajte Abdou Lahad Ka laajte ñu ne ma sànci Abdou Lahad Ka moo tàmbale ma leen kuy laaj ana Abdou Lahad ñu ne ma ma nga nële booba maa ngi dégg Lahad Ka Lahad ji rek mm-hmm. moom sa xaw ma mm-hmm. ma daal di koy àgg nuyu ko boo ko nuyoo munoo sant ma ne ko Fall laa sant mu téye sama loxo mënoo tudd ma ne ko Modou Fall mënoo ma noo tudd ma ne ko Modou Fall ba muy ñetti yoon. Mm-hmm. laat ka ni teg sëñ Ahmadou Badou yi ak yeneen kilifa. si leen ñu dem. Mm-hmm. maa moom kese ñu taxaw ci digg sant bi. munuma looy wut ma ne ko man ne damaa liggéey bi commencé ma ñëw ba xam naa a am ab sorne am déet boobu ngi wut si man ab sorne. benn waaw ndeysaan. laat ka ma li lay jëlee fii ñaari baat da ma ñaari baat rek laa am ci lu wax. ma ne ko ah mun ma li lay jëlee fii yaa koy wax wala nga def ko. maa ngi koy nuyu bu di ko ñaanal. Mm-hmm. Abdou Lahad Ka di koo ni taalibe bi taalibe gi mu wax ni ci diggam ak sëñ Abdou mm-hmm. man naa ci seere man. ndax am na lu ko sëñ Abdou Lahad ci sama digg moom te loolu la jëflante ak man. Mm-hmm. bi ma waxee loolu ma ne waa laat bàyyi laat mi li muy wax nii ah li lay jëlee fii yaa koy wax la nga def ko ci koo xam ne mi ngi door a ñëw xamoo ko. daane ma gis nga bâtiment bee ñu joxoñ ko mu ko waaw mu ne ma dinaa la ko jox ma ko ca lan mu ne ma dama la koy suutare te nga liggéey yow laa jox lépp sama dooma nga fee yuusu mu ngi ci bureau mhm. boo demee na la génneel plan yi na la ko wan nga waxaale moom lu ngeen lu ngeen jubóo rek dinaa la ko fay xam ne yow bi ngay bi ngay ñëw ci université boo fekkoon na yow jàngoon nga maçon ba amoon ba aw jàng naa ko liggéey liggéey bi nga amul woon daal amu woon liggéey yàlla dogal te li ma la ne la bi may jógee ci fee cent francs yi ma paase sama yaay moom ma ko jox ci weccet ci liñ doon liñ ko doon waaw bi ma ñëwee wax ak Youssou ñu déggoo ci première deuxième ba troisième ñu déggoo ci bu dee ren ñu ne ma comme da ngay door a commencé xamaguñ la duñ ba lépp. Hmm. par étape lañ ko def boo liggéey première bi. nga noppi ñu ñu nga liggéey. ñu wax ci deuxième bi nga liggéey ba ca troisième. ma leen waaw ma ne ko waaw. maa def ni ab téléphone am daal di woo bàyyi laat def ko mairie ba ne ko juboon maa ngi Modou Fall de ci nangam ci bâtiment bi. waaye hmm. nag par étape la nangam dana étape lañ ko ciy fay. bàyyi laat ne ko lundi na commencé muy samedi lundi na xëy si. Hmm. lundi jot ma ne ah waaye sëñ bi yëf yi moom doy na waar lundi ma war a commencé te yoruma benn ut yi ma yoroon bagage yi ma yoroon di ko yëpp nga ndakaaru te xam naa ni moom su ma demul lundi bàyyi laa mën naa mën na ni ngóor suñu mën naa joxe liggéey ah, <laughs> ah ma ñëw sama yaay ne ko dem naa ba ñëw yàlla dogal na laat ko ne ma lundi naa xay si lundi nag naa sol sama tëni dem yoruma dara de lundi jot ma sol sama tëni ñëw war a yow bâtiment boo xamante ni yow ay cent nangam million koy liggéey nga ñëw yoroo dara. tàmbali waaw war a tàmbali si. <laughs> muy lu doy waar. bu yéeme ma ne Youssou ma dem ci ma juróom-benn junni Youssou daal may àll maa di ñëw ci Ibrahima Ngom moom. waaw ndeysaan. ma demee ci Ibrahima Ngom ma ne ko man ne damaa war a liggéey fii mhm. xam naa ne li ma yor moom bagage yi ma war a jënd li ma yor moom xam naa du ko mate. damaa bëgg nga dimbali ma boo ma jaayee trent mille ci ay bagage mhm. ba jeex li ciy manqué nga lebal ma ko man nag maa ne nag danaa la wax sama bopp maa ngi door a ñëw ci université bi maa ngi door a commencé liggéey waaye lépp loo ma jox soo yàlla dinaa la fii dina ko fay moom mu jaay ma la soxla woon mu jox ma ko ma gàddu saay bagage nag ci biir war a ba tey mel man la de ma ne waa ba tey mbir mi des na ma nan laa man a demee ci bâtiment bee ni fa cundum naan damay liggéey waaye la dama ma toppal fële yow doo yow noonu la joxe liggéey nga ne léegi bi ma duggee ci biir ma di gis ñu doon liggéey ci beneen entreprise bi nekk foofu. Mm-hmm. ñu dàq ay nit ñu bari yoo xam ne dañ doon coow ma dañ doon xeex dañ leen a dàq ñoo xam Dakar lañ leen jëlee woon. léegi nag bi ñuy ñëwaat ma dajeeg ñoom ci buntu bi ñuy génn pour ñibbi ma leen fu ngeen jëm ñu ma lañ doon liggéey de waaye. Mm-hmm. ñaar ñoo fa ne xeex ñu dàq ñu dañ ñibbi waat Dakar ma ne ay lan ngeen ñu ma. kenn ki ki ci seen chef ne ma man polyvalent laa lépp laay def maçon laa coffreur laa lépp laay def ma ne ko ah mun ma waaw ma ne ko ñi nga àndal nag mun ma ñii ay maçon lañ ñii ay minébar ñii ay ay ay ma ne ko ma ne ko jël naa leen yéen ñëpp. waa ji waaw waa ma saa looy wax ni yow laa yu sax fay ma ne ko lu leen doon fay mënuma ñun maçon yi six mille minébar yi trois mille ma ne ko jël naa leen yéen ñëpp. Ah, waa ji ma ah sanwaay waa ju xaw a doon si ni ma sanwaay ah ma kon ma tourné gars yi ma ne ko tey di ngeen liggéey na ngeen topp leen ñu di àgg gars yi summeeku sol seen i sol seen i yi ma leen acce nañ tracé nañ takk corde yi commencé daaj affaire yi commencé ma ñëw ak àll nag mu mel ni université bi xam naa jamono yooyu am na luñ ma luñ ma maanaam prise bu ñu ma roof daal xam naa ne waaw war nañ maa liggéeyloo <laughs> wallaahi bi bi laat ka ñëwee gis gaa yi commencé liggéey di ay gaa yi nekk ay jàmbaar nag laat ka ñëw gis leen rek kontaan ne ma ñëw nga kon ak gaa yi commencé nga ma ne ko waaw waa kon moo kii pare nga ñëw fekk ma sama bureau ma àgg dem bureau fekk ko fa wallaay la xasim biñ toogee mënuma université ku ne entreprise ku ne xam ne am na nu muy doxee. Mm-hmm, mm-hmm. bu la joxee sous-traité da nga bala ñu laa jox avance démarré da nga wane loo xamante ni lu dal suñu xel la. Mm-hmm. door laa jox. waaye yow de te jii laa lay jox avance daal di nii ma bi maa lay joxal sama bopp nag génne deux millions jalal ma ci kaw kaw ko la ilaha illallah. ma ne ko lii nag man mooy mooy sa jalal mooy sa ah! si tubaab bi moom yéeme na di. <laughs> daal di jël deux million yi man man waa lat ki mi moom moom koo gis bërki démb xamoo ko jox ko su xaalis waaw bu ma demee ka nii sax nee naa ko benn bis nag ma di ko benn bi yëf looy jàllee man ko bàyyi la yow yow bu ma dawoon sa xaalis mun ma du ñëpp laa koy def dëgg la lii ma la def nii waaye yow yow daa am la ñu woon ci yow dinaa la ko wax mm-hmm. léegi biñ demee nag ba ba ma liggéey liggéey bi ba liggéey bi sori mm-hmm. ñu invité ma Omaro invité ma. Mhm. ma dem di ko tàggu ji. dem këram mu woo ma moom sax moom moo ma koo tàggu am koo woo ma booy xëy di dem nag ma jaar na nga jaar kër. ma dem mu jox ma trois morceaux jasineer ak xaalis. moom sëñ xam ne moom tereetu la daal waaye moom moom. yi nga xam ne teraanga ko moom jox na ma xaalis jox na ma trois morceaux bu ñu paqueté maa ko daj. ak paas yow de xam nga ni sëñ Abdou Lahat ma booleeg yow. wallaay ndeysaan. ne ko ah. waaw ma sëñ Abdou ma booleeg yow ci lu wér. Mm. yow ba nga njëkkee ñëw. Mm. laaj naa la sa tur ñetti yoon. ma ne ko waaw mun ma loolee nag daa am lu ko waral. ma xam ni ah fii kon sëñ Abdou Lahat fi jaar. fi liggéeyloo. lii moo fi liggéeyloo. Mm-hmm, mm-hmm. kon noonee la ma Abdou Lahat ka téye. ba fii may wax ak yow. ba nii may waxee ak yow. Mm. sànc ba ma jógee maay chef de sànc ba. Mm. nga xam ni nga xam ni daal kon njàqare li nga xamante si moom moo la bàyyi woon fële. Ah. ba yàlla dogal ngay jóge foofa noonu di wuti liggéeye di fa àbb. Ah. ñaar fukki dërëm tey mu mel ni njàqare loola moom. dama yaay bi ma ñëwee ne ko 2 millions lañ ma jox. Mm. daa jóg toog bi bopp bi. ndeysaan. ni ma Moodu ma ne ko ah mu ne ma biñ may biñ may jëli sama sama kër baay. Mm-hmm. fukki at ak laa am xaw ma xaw ma xaw ma dara. ci xaw ma it kiñ may may. ni ma kii ma ki bi bi ma sama bàyyi ne suñu laaj da laa soxla da jox taalibeem xaw ma ku dama sama bàyyi damaa takk damaa takk saret ma dem. ci bu ma ñëwee suñu laaj indi ma belal ganale ma. yóbbu ma daara ja ma kii laa la may. Mm. nekk xale bu ndaw gisuma kenn gisuma ndey gisuma bàyyi. Mm. nekk foofa. di fa liggéeyal sëñ Tuubaa ba nga gane ci jàmm ba nga gane ba juddoo ci mm. ni ma gise koo dara lii lii jomb la ndax daa koo liggéey dëgg la li waxuma la li ma liggéey ci sa sa waajur waaye li ma liggéey ci sëñ laxaat képp mm. Mm. mën na laa may loo raw ndeysaan ma daal di koy jël yóbbuwaat ko jànnatu mm-hmm. yóbbuwaat ko jànnatu di ko faj yàlla dogal ba ni mu décédé suñu borom dimbalin ma mm-hmm. ba coono yooyu moom mm-hmm. sëñ bi saafaraal na ma ko. macha allah xasida yi yàlla dogal bi ma ci nekkee it ci université bi. damay nekk université ba ak sama yaram tàng rek may yëkkati man booba xooluma sax ñu naan ma kii yaa ngi lay filmaak. xaw ma sax booba ay ñu ngi may filmaak yooyu. ndeke booy yi ñu ngi filma rek buñ way yëkkati ñu ngi may filma dañuy filma rek dugal ci internet bi ndekk nit ñi. ñu ngi koy bàyyi xel. sëñ bi mi ngi leen di bëgg a rey damay toog ba yàgg nit ñëw université ak i jooy. wallaahi nit jóge Italie ñëw di jooy. ni ma bu ma la gis doon du ma am jàmm dëgg la ba sëñ Saliou yëkkati teraanga yu bari jox mhm. ma fu ne nit fu ne nit di ma fa wooyee ci ci àdduna ay ndeysaan ma ne lii daal mu daal lii jaaxal na ma lii sëñ sëñ Touba sëñ Touba daal ndeke dal booba sëñ bi mhm. war na ma ne nag sa liggéey mhm. fii laa koy feeñal ay ndeysaan soxna Ami si la ndeysaan ndongal sëriñ Sohaibou <laughs> macha allah di ku baax. <laughs> maa ngi koy nuyu lu bari. macha allah ndeysaan fa la ma fekk moom itam ci université ba. soxna ma soxna Amisil la. soxna Amisil moom Serigne Soyebu. soxnaam la. Mhm. moo jur sëñ Mourtala ak sëñ Baara. Mhm. xam ni Poroxaan. ndeysaan maa ngi Mamor Thiam mi ngay wax. waaw moo ñu fay yóbbu. Mhm. macha allah ñoo fay jàng këram Poroxaan. maa ngi Mamor Thiam. Eh, université la ma fekk. yóbbu ma këram. ni ma yow de da ngaa bokk ci ñiy liggéeyal sëñ Tuubaa. dinaa la teral daal di yëkkati benn yére bu oyof jox ma. ne ma ñaw ko te sol ko ne ma yére moom doodoo ko jënd. ndeysaan. lii moom maa ko xam ak te la am na pal moom ta jënd ko boobaa léegi te néew may ñaata. macha allah <laughs> am na solo ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax mooy soxna Mamy Sylla di ñaan yàlla defal ko ay xéewal yu yaatu ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul moom itam. ngeen di wéy di ànd uh, bu mag bi di wi TV ci micro bi seen mbokkum taalibe Ndiéna Thiam uh, waaye tey ji ñu feggoog Serigne Modou Fall yaakaar naa. macha allah ku déglu tey Serigne Modou Fall di nga xam ni maam Serigne Touba ci boppam noo ci sooboo rek. noona nga cay nii ne tey mbiri mbiri Serigne Touba moom mën naa dee waaye du fa naan mukk moom kon loolu yaakaar naa lii rek firnde la ci. Euh, su ko defee rek euh, amaat na yeneen question hmm. waaye dañ lay bàyyi nga ñëwaat ak ñun ci benn air rek bu ko defee ñu ñëwaat incha allah rabbi ndax auditeurs yi tamit wan leen seen bopp da ciy am solo. Hmm. macha allah incha allah. إذا طلبت من إلهي جل باب وإن سرفت بالإلهي سل باب لي جاد بي تميري ربي العاب مزاد لي دخل هو الله الآت باراني باخي من الأمراض وكب من أنكر بترايدي لو سكوري على آياتي عبدا خديما فاز في الآيات أذكر شكر الذين سربوا من ربي وللجنان قربوا xust ayaatan laa turaaya li xayri mujizatan baanat li wusni xayri yajuudu lil jawaadu bil jaadi wasduulu li yakuunu san qiyaadi yaani yal baaxi bilaa imaata ولا تناسي ولا سمات أزاني الباخ الكتاب لا سماء ولا أخي كل من تعسما أني جزا والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفاني بالمصطفى مصطفى علي تسليما نفلا في داقلا إلى ذكور من سقر لي خلق بقاي سامن ربي مالكي قليلي ولبيب waxat ma anni yadaahi ya tabib baraani min kulli aybin wa maral waxaadani siata fi kulli xaral baarit min uyubi nasi biltijaab illa alladi afaabo lan turtajaab هو الكريم الأكرم المكرم واليمن لا يريم الكرم محمد الوسيلة وجنتي عن كل ذاء واسد وجنتي ينقاد مني السلام عن سلام له بعالي وعبد الملاب رسولنا أحمد كل الأحلام عليه خير صلوات العلام سلت له أفكار أمدا إلا من جيل سني وسفر خلدا qalbi safa bi kawni rabbi xilli hibbi wali jaala kudran qulli wajaani ala wata daarayni wa fi ma jahalani jaarayni nafaani bima bada wa martafa wa kawnu hali bil munaya martafa أردت بالله الكريم والرسول وعيد بي ووسمن خير رسول رد ابتداء مدي باقي التباب أزل توجهت إلي فالتباب أكمني الحكيم وهو الحكم ومن تاتي المنى والكمون يقاد للعليم والخبير ما دونه العلوم وتليم نفى الخبير أنفادي جلاب سرت بي لبس الملعلاب براني علي من دلاني فسرت مقسطا بلا إخلاص ما غلاكي ما اخترى كليتي من البلايا أقبل العدية إلا يقبل العدية الكريم وكل ما كنت من الله الأروم آيات منزل كتاب نسلي وإنني عن الأساب مسري ضيق الذي لا يقني من الإدام أدي تسليما مبيد من خدا لكل من ليقني من قبل ولم يتب دنيا وأخرى قبل أداني العادي بجاي العادي كما تقبل بجاد وجار بيا بقدر السماء سات الكريم من منن وسما يذوق لما سيء بلا انتهاء ولا أسن كماله سير انتهاء ساق لي الباقي قرا بلا انتراب كن فيكون لي لوجه المرام تكريم من ليس له انتهاء li yadi tatbiirun waaw baadara li juudul karim wal karam baaxir wadaadin laa ufaarixul karam saal ilaahu annani mukarimu killun wayibun wabiinu karimu raditu anhu wa wa aniraadi wa kaana li bil amri fil axraadi waajaari jamiilu nihma bi jamiil wali siwa maxtaaru alila amiin nabaala si lam yartari wa sataraat sirri wa aybi wa mabiyaati siraat biraasu man baarasani biraasu man yubaarisul multaqiman baarisaman إذا تلت من إله جل باب وإن ترت من إله سل باب لي جاد بتويد ربي الآت مزداد لي بقول هو الله الآت له مدادي وقلامي في رداء وأبدا لسوء لاق من قدا. jërëjëf jërëjëf Serigne Modou Fall. jërëjëf sëñ Modou faal ñu delluwaat bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaanalaat bu baax a baax Cheikh Abdou Lahad Mbacké mm. euh, di ñaanal bu baax a baax njabootam gi macha allah waaye di ñaanal bu baax a baax sëriñ Modou Fall mi nga xam ni macha allah moom itam euh, kenn ku nekk xam na ni euh, ni mu ko waxee rek pas-pas rek mooy di am solo ci àdduna lépp loo man di loo dugg rek looy dugg lu nekk rek ànd ca pas-pas suñ borom dana la ci dimbali incha allah. Eh, kon ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax waaye di nuyu bu baax a baax au passage sama xarit Serigne Massamba Thiam Libi diwaanu Libi nee naa la lépp lu ma am ci média tamit man sama jëmm rek moom laa koy sante moom Serigne mu eh, Serigne Bàcci Thiam fële ca Libi waaye di nuyu baax a baax Serigne Modou Matar Diop bu rajo Benno FM moom it maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu suñu naataangoo yi nga xam ne ñoom it wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi siifur site bu mag bii di waar Waarwi TV ndax nee naa la ñun ñëpp benn lañ ndax àdduna moo bindoo noonu kenn ku ci nekk dangay roote ca sa morom di sotti ci sa bopp kon loolu mooy àdduna macha allah sëñ Modou Fall jërëjëf ci njàng mu passeefu mi macha allah euh, tey ji ñu euh, ñëwaat rek ci beneen laaj tey euh, sëñ Modou Fall mu mel ni kenn ku nekk xam na ni maanaam njàqare mi ngi ko dëddoo ci li nga xamante si moo di université bi jamono yi nga nekkee ci université bi Euh, booba xëy na bi ngay door a dugg ci université boo fekkagul nga tàmbalee engagé say programme boo fekkagul nga tàmbalee engagé programme jamono ji sëñ Modou Fall mi ngi liggéey ci université bi ba pare boole kook ay programme di dem di jàngi ndax du am benn empêchement boo xam ne mi ngi koy def ci wàllu liggéey bi waaw empêchement bi moom mooy coono métti rek métti waaw métti na coono bi moom métti na ndax njàng lim laaj dafa bari njàng yow mi di ab jàngkat dangaa war a jox sa bopp àq ji mm-hmm. àq ji mooy di dallu mm-hmm. di nelaw di noppalu bu baax mm-hmm. te coono yi metti yi nga di ko wàññeeku mooy waral tey baat bi loo koy laaj rek mu jox la ko boo xoolee ci sama birum njàng sax day feeñ ci sama baat waaye loolu lépp damay xam ni ay coono la ndax boo bëggee di xëy ci université ba boole kook sab liggéey boole kook di dem ci programme yi waaye loolu it yàlla dimbali ma ba ki ma yàlla booleel muy Abdou Lahad Ka xam na ni damaa am cër na ni sama bëgg ci liggéeyam Sëñ Tuubaa bi ñu nekk moo tax daanaka yenn saa yi ma yoo xamante ni day doon bis yi ma war a liggéey waaye du ci wax dara la ma war la la ma la mu war ni fi mu toll nii damaa anga damaa embauché ma fay par dara du ci manqué ndax xam ne cër bi ma am wala gi ma am ci xasit yi te loolu même nga ci jàppale ci côté yëpp ma di ko ci sant bu baax di ko gërëm coono yi nag weesuwul yàlla dogal boo amee programme e, nga dem jàngi ko waaye dañ ni boo jàngee programme boo ñëwee loo war a def da ngaa a dallu man damay xëy liggéey maanaam yow boo fanaanee jàng ba bët set boo xëyee da liggéey su ma xëyee damay liggéey ndeysaan keroog màggal ko seen daanaka ñetti programme jàng naa ko boole yéen doo liggéey ci màggal gi nga ma jàng ñetti programme bi mu xëyee damaa liggéey. loolu doy liggéey ci màggal gi liggéeyub kër sëñ bi. Hmm? guddi jot ma jàng ñetti programme daanaka fanaane ko bi mu xëyee damaa sol sabtani dem université liggéey. maanaam amul tey dama war a dem liggéey damaa war a dem jàngi. naa xëy liggéey bu ngoonee ma noppalu. déedéet amul jàngi naa tey jii. naa xëy noppalu. déedéet nga xam ne daal maanaam liggéeyu Serigne Touba bi moom maanaam muy liggéey université bi moom. maanaam fasoo yéene lenn loo xamante ni si ci sa coobare yi bopp la lu koy fànq waaw déedéet fasu ma ko yéene di loo xamante ni diiru sama sa sama coobare mi mu koy may mm. sama kant ma mën a dox mm. di man a wax mm. lu coono bi métti métti dinaa ko dékku en li dem liggéey liggéey sëñ Tuubaa bi ndax kat sëriñ Tuubaa ba muy ñaan boromam lil Mustafa li banal xuduusu madrasatan biha asalo asal wal jëxul wal kabadu loolu dafa bokkoon ci liggéey bi da cee bokkoon lil xuddoosu madrasata li banaal xuddoos mm. mm. kon université bi dafa bokkoon ci ñaan googu bu la yàlla dimbalee nga bokk ci ña koy liggéey danga ngaa war a sant sëñ Tuubaa bu la ab mm. bu la ko ab coono te def lu métti métti it xoolal ni ki ko ñaan la mu daj ak fa mu jaar ci ab coono ba ñaan suñ borom suñ borom defal ko ko yow yàlla dimbali la nga am tawféexi bokk ci ñu koy liggéey waaye yàlla dogal nga ngay ndax xasida yi kat ab cër la du caagi nag damaa bëgg a jàng damay jàng xasida rek dama dama koy def sëñ Tuubaa la koy cërale da ngay bokk ci tànneef yi ñu koy bokk ñu koy war a def ndax am na ñoo xam mokk lañ xasida yi di ko durus te mu ñu ko yëkkati te mënuñu ko yëkkati wala sëñ wala joxu suñu borom joxu leen baat bi ñu mën ko yëkkati kon bu la yàlla dimbalee taw feexale jox la baat bi ak kattan gi di ko man loolu ab cër la kon dangaa bokk ci tànneef fi macha moo tax lu mu métti métti it danañ toog métti bi xam ni yaakaar naa ni liggéey bi Euh, ndax ala kulli alin day jeex bu jeexee nag mhm. boobaa da mën a xam nan ngay organiser sa bopp macha allah ba mën a bokk ci géew bi bu baax mhm. mën a doxal bu baax comme ni ko ñëpp di defee incha allah waaye pour l'instant daal mhm. maa ngi koy doxal waaye maa ngi koy maa ngi koy yi metti yoo xamante ni yàlla suñu borom ak sëñ Tuubaa may liggéeyal donc laa koy seedaloo te gis nañ yàlla baax na incha allah rabbi di profité rek di nuyu sama jëwriñ man itam ci euh, xasida yi di sama xarit di sama wolore muy soxna Khady Ndiaye bu nga amee xam maa ngi koy nuyu bu mm-hmm. baax a baax ci di ko ñaanal moom itam suñu borom yàggal ko fii cam ànd ak gër macha allah euh, ñu bëggoon a ñëw ci wàllu programme yi Serigne Modou Fall ndax xëy na waxtu wi moom <laughs> buñ ko toppee day ñu ah. <laughs> tuddi euh, tey Serigne Modou Fall ak ay programme am Serigne Modou Fall yaa ngi engagé ay programme di ko dem di jàngi ndax maanaam da ngay am looy teg ci taabal ji wala maanaam comme maanaam liggéeyu Serigne bi rek comme ni nga koy waxee noonu waaw fi toll nii moom amul benn programme boo xam dañ ma ko wax ma war koo jàngi naa leen jox leen ma nangam. Mm-hmm. wala yónnee leen ma paas sax ma ko wax. Mm-hmm. man damay dem rek xam ni liggéey bu ma war a defal sëriñ bi. Mm-hmm. lu ma ci sëñ Tuubaa wërsëgale nag ma xam ni. lii moo fay sama wërsëg. ci xasida yi. saa yu ma saa yu ma waxee programme rek. danaa jóg bu dee bu ma man a demee. danaa jóg dem waaye du ma ne fu may dem sart yi laa lay tegal. wala lii laa lay defal wala déedéet. du ko def damay def def ngir sëñ Tuubaa. nga xam ne si waat. Euh, ndax man sama njàng it boo ko dégloo ba ca biir te xamum njàng di nga xam ne kii li muy jàng yëg-yëg la yëg la koy jànge mm-hmm. njàngu ma ngir àdduna de dëgg la man li may jàng dama koy yëg sama diggante sëriñ bi mm-hmm. tey su ma toogee ci baas di jàng su ma xasee ba téye micro bi jublu penku di jàng mm-hmm. yàlla xam ne ni nit ñi ci baas bi soo du ma leen gis yàlla rek laa koy seeraloo duma leen gis su ma noppee daal dinaa gëstu gis mbooloo mi waaye su ma xasee ba toog man yëg-yëg bi may am daal mooy xasida yi mm-hmm. du ma xool nit du ma gis nit mm-hmm. su ma noppee daal dinaa gis nit mm-hmm. waaye xasida yi dong laay gis yëg-yëg nag laay jànge barki dem sama benn xarit daf ma woo ni ma bu nekk Dakar bu ñuy wax sëriñ Xaadim ñang ni ma sëñ Muudu yow sam njàng dafa baatine ku am dëgg dëgg yëg-yëg boo ko dégloo day dugg ci sa xol dëgg la loolu man gis naa ko ci ñi nga xam te ne xam nañ xasida te di ko dund mhm. loolu la ñuy jëflante ak man ci incha allah ndax mhm, mhm. teraanga yu bari suñu borom di ma ko ci defal yoo xamante ni nit dana la woo nga dem programme am ko laaj dara waaye bu paree dana la jox loo xamante ni ay boo ko laajoon it xëy na la nga koy laaj du àgg foofu dëgg la macha allah sëñ Tuubaa moom euh, euh, euh, mi ngi noonu li li li li li sëñ di wax ni boo ko defalee loo man mu defal la loo mënut boo ko defalee loo mënut mu defal la jomb rek moo ci nekk macha allah waaye yenn saay dinaa def ba def loo xam ne damay wóor ni lii mënuma ko waaye ma ci loo xam ne damay wóor ni lii jomb na hmm. macha allah jërëjëf sëñ Modou Fall xam naa ba tey rek ñuy njëkkante waxtu yi ndax xëy na am na waxtu yi daa mel ni li ci des bareetul waaye euh, ci jëkkante rek am tomb boo xam ni euh, ci njàng mi lay ñeel ba léegi rek hmm, mu mel ni am na loo xam ne dafa dugg ci biir njàng mi te yàlla dogal ñu gis ni bokk ci sëñ Modou Fall yow en tant que jànkatu xasida soo demee tey jii bay dem ci baas ngay gis ñuy woo ay homme de tenue di leen fa teg ngir ñu koy sécuriser est-ce que jotul nag maanaam ñi nga xamante ne si ñooy war a ñoo yore wàllu njàng meek wala ñi nga xam ne ñooy jànkat yi est-ce que jotul tamit maanaam ñu xoolaat suñu bopp ci wàllu organisation. organisation ak it maanaam. Hmm. waaw loolu. bu yàlla dogalee tey nga dem ba àgg foofu. Hmm. ndax fi ne boo xoolee lu ne yaa ngi koy gis ci baas yi. Mhm. danga gis jànkat bi jàng ba yàgg nit jóge fële rek. Mhm. ko fañe dal. mu mhm. loolu tey da dem ba mu laaj ko. te it fi ñu nekk di fi ñu toll nii. li nga xamante ni moom. ñun e, fu ñuy jàngee. xaside yi. dañ bàyyi xel suñu bopp waaye dañ bàyyi xel xam ni. lu yëngu rek la ko yëngale ko ëpp doole. ndax di gis. jàngkat bu jàng ba yàgg nit doy tabi fële dóor ko kur fañ mm-hmm. yaa ngi dégg boo doo boo bu fekkee nekkoo koo xamante ni maîtriser woo sa bopp man mm-hmm. nga faa man nga faa indi ndax mën na laa dóor foo xam man naa mën na laa gaañ mm-hmm. yow it mën ngaa tourné dóor ko sama benn xarit euh, euh, euh, Bamba Dior sëñ Bamba Dior Bamba Dior sama waxee la loolu fa ne dama koy seetaan benn image day waa ji waa ji ni waa ji kur fañ ko Bamba daa def daa jël micro bi rek jël pause. fa séenee raag xam ne waaj desiwaat su waaye raag ak dawul deful dara kon loolu maanaam dafay dafay jot ci jànkat yi ñu di ko bàyyi xel bu baax di wut ñoo xamante ni tey fu ñuy jànge ci dañu ànd ak ñoo xam wóor na leen ñi dina leen mën a protéger mm-hmm. ndax doo du du foo dem rek di nga ko fekk maanaam sécurité boo xamante ni mm-hmm. doy na fa sëkk macha allah sëñ Modou Fall ndax gëm nga ni dëgg-dëgg jël am na waaw jël am na am na li ma ko gëmee mooy mm-hmm. man xëy na du ma mbëkk Mhm. waaye yëg-yëg bi may am. Mhm. ba tax ma jooy. Mhm. ci laa xam ni jël la am na. ndax jël yi ay façon yi la. ay façon la ñii dañuy mbëkk. ñii di jooy. ñii jooy jooy xol. ñi nga xam ne maanaam dañuy ñëw ci baas yi comme tey jii sëñ Modou Fall am na euh, ay soppe. soppe yi nga xamante ne si tey fu ñu déggee ni sëñ Modou faa a ngi jàng rek ñu daal di waaxu ànd ak ñoom nga xam ne ñooñu. Euh, bu ñu demee dañuy def li nga xam ne mooy li xew léegi. ndax ruube ruube moom xamuñu ko woon ci njàng. samp xamuñu ko woon ci njàng. tey ñu dem ba gis yooyu yëpp di dugg si ci biir njàng mi. ba tax maanaam léeg-léeg ay nit di am ay cant wala ay programme di ay homme de ñu koy sécuriser ndax yooyu ci njàng mi la bokk. waaw yooyu. jamono jamono moo dem bañ ba bañ dugal ci loo xamante ni. Mm. bokk ci waaye njàngam xasida daanaka. Mm. fekkee ni ñu war a def dëgg dëgg def nañ ko ak nañ ko war a teewloo. Mm. jërut jërut di. teg ay homme de di sécurité yooyu waaye mm-hmm. nag jamono moo ko laaj. Mm-hmm. waaw ndax man mi am naay soppe. Mm-hmm. am naa groupe soppe boo xamante ni groupe bi mi ngi ci deux cent nangam personnes. fii may wax ak yow. yoo xam te ci dëkk bi fu may jàngi tey ñoo xam ñu ngi ki dëkk bi te war faa mën a teew dañ fay teew. dañuy ñëw teew di ma déglu si. ndax man rek la ñuy topp bu xam kuy topp rek bu ubbil ko ab groupe. di ko ca topp. loolu maanaam bu ñu teeweet. tey di nga teew ci ngir ngir ngir yet. di nga teew ngir xaside yi nga xamante ni moom la ñuy jàng teew ngir bëgg nga bëgg ki koy jàng waaye teew it ngir protéger ki nga xamante ni sa soppe la da cee am da cee am gis ñu jànkat yu bari ay nit di leen dem di leen fekk fa ñuy jàng ngir bëgguñ ko bëgg waaye ñii ngir xaside yi waaye ñii ngir am na ñoo xam te ni àdduna la mbirum àdduna la li ci jànkat mm-hmm. buñ toogee wala ñu takk am na boo ñoo xam ne ñu takk ay ay bagages mhm. nga jàng bu yàgg ñu ñu daanu yàq njàng ma mm. te loolu xam nga tegul fenn dëgg la yooyu amatut njàng mm. bu njëkkan jàngka bi day jàng nga am yëg-yëg toog fi nga toog di jooy mm. xol tooy ngay jooy yëkkati la nga am jox ko yëg la buy buy buy nekk ci doomu kon nañ war maalaat xasida yi mm-hmm. te joxaat ko gëddaam mm-hmm. ñun jàngkat yi ñu xam li ñu yor mm-hmm. ñu xam ko bu xam ni damay dégg ci jànkat bu mag muy Serigne Xaadim Gueye maa ngi koy nuyu di ko ñaanal. mu naan njàng xaside yi. Mm-hmm. Eh, ndëndum ndëndum nañu koy waxee ndëndum la kenn du ko tëggal baadoo du ko tëggal baadoo la. allah dañu ñun tam dañoo war a xam war a xam ni. Mm-hmm. Eh, xaside yi du du du du foo toll rek. wala mm-hmm. koo toll rek di ko ko yëkkatil. na nga ko yëkkatee ci fu ko jar. fu nga xam wër la fii tey bu sëñ Tuubaa taxawaatoon tey du ci am lenn loo xam te ne lu muy xewet la. waaye nag. yëkkatil ko ñoo xamante ni daanaka ay waykat ak ñu ne. loolu wax dëgg yàlla dama koy gis. macha allah gis jànkat xasida damay wóor ñu ni ñii ñuy yëkkatil xasida ay waykat la. Hmm. loolu euh, euh, maanaam bukkut ak euh, delloo ñu ko si. ndax loolu mooy li ñuy wax naa dóor di dem di dóoree. jeex na <laughs> loolu mooy dóor yi rek <laughs> jànkat boo xam ne da ngay gis jànkat yoo xam ne dañuy topp ab waykat di di buñ jàngee daal doy na waar. doy ñu xewal daal ci njàng mi. <laughs> Uh-huh. bari na waaye man de yi xay na maa ngi ciy gis loo xamante ni ak it sama dëggu ak yëg-yëg bi ma koy defee du ma dem ci ki yàlla bind wala koo xamante ni wóor a ma ni ki yooyoo ma ko jàngal déedéet te mi sama tëni bee sax mën naa koo sol dem ci bas jàng dëgg la waaw tëni bii ma yor nii mën naa koo sol dem ci programme jàng ba mu jeex ma te def naa ko nag ba tàyyi waaw waaye damaa xam ni sëñ Tuubaa bu la teralee da ngay xam ni tereel na la dëgg la na yenn barab yoo xam boo fa demee waneel ni kat xasida sëñ Tuubaa yi may jàng sëñ Tuubaa mi ma ciy ndax loolu moo tax sañ bi di la jox teral mm-hmm. macha allah kon da ko war a wan nit ñi mm-hmm. bañ xam ni mm-hmm. sañ Tuubaa li mu wax ci xasida yi lu wér la ku jàng da ngay tedd rek macha allah <laughs> du ak bëgg àdduna <laughs> déedéet waaye teraanga ju la la sëriñ bi teral la te war nga ko wone maanaam ku santul xarab waaw allah am na solo jërëjëf sëñ Mourou Fall xam naa jumbul li ñu bëgg laaj lépp ndax euh, émission bi xat na ci dañuy wax ne ndaanaan moom maanaam boo ko dalalee rek boo amul sens Euh, sa émission mën naa mën naa dem ba yegg foo xamante si day débat macha allah waaye xam naa ne jombul euh, ko dinañ topp rek ci ci yeneen i jotaay xëy na jombul di nga ñu may ab émission fële ca Daaru ah Musi incha allah rabbi waaw euh, su ko defee rek tey ji nga ñëw ñun ci benn wolofal bu gàtt bu ko defee ñu daal di yëkkati jotaay bi ba beneen yoon nga jox na sa numéro Seexul Xadiim jibul waat nanoo ngi nangul nu noo njaboot gi ñépp nu ngi seexul xadiim jébbaluwaat na nu ngi nangul nu noo njaboot gi ñépp nu booy def murit defal murit saadix ba di di def di def sore nag deq ba abayaati ak murid lu wer lu am la ni defikaay ndax yi mel luñ xam la jàppal sëriñ Tuuba te fonk doom yi ak sët yi ak murit yi ndax mbootam yi nan maa sa def doom ya def jëmmam jaab ñu def xasaay tami tami waxam jaab nan maase def doomam yi def jëmmam jaab ñu def xasaay itam itam yi waxam jaab kuy liggéeyal yàlla dañ lay dolli soo ko gëmul laajal Seex Abdu Lahat Mbàkkeem Sëriñ Tuubaa kuy yàlla dañ lay dolli soo Sëriñ Tuubaa kuy liggéeyal yàlla dañ lay dolli soo ko gëmul laajal Seex Abdulaat Mbàkkem Sëriñ Tuubaa mooye jëpp bu jëf ju ban fa Tuubaa mbaa jëf ju sew cey bu gisek baayam mbaayam tëggi sabar ak i tamaa ki riiti Seex Abdulaat gi moo juliite tëggi sabar ak i tamaa Cheikh Abdoulaat terem gi moo juliite Cheikh Abdoulaat ku mu jamonool jëfal na ko yëgeeg boo ko jariñ na la ku mu jamonool jëfal na la boo ko yëgeeg boo ko yëgul jariñ na la Cheikh Abdoulaat ku mu jamonool jëfal na la boo ko yëgeeg boo ko waqdi lawaaij allazina daamu fi xidmatin waab lahum maa raayamu waqdi lawaaij allazina daamu fi xidmatin waab lahum maa raayamu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman di si xam jërëjëf jërëjëf lii moom xanaa sa eeru bopp la wala man jeex naa ko jeex naa ko jeex de eer bi ma xaw a nirool tuuti daal mooy euh, sëriñ Moustapha Gueye Taysir. waaw moom daal la ma xaw a niru. waaye jeex naa ko jeex jànkati waaye daal. gars yi moom dañuy <laughs> yenn saa génn foo xam ne ay wëri moom sa bopp la. macha allah waaw moom nga génn foo xam euh, sa bopp la moom. macha allah euh, tey jii ku bëggoon a jot ci sëriñ Modou faal fan lay jaar. waaw tey ku bëggoon a jot ci sëriñ Modou Fall yaakaar naa ni am na staff. Mhm. staff bi nag ki ci jiitu mooy sëriñ Abdoulahat Gueye. Ah. numéro 4 du mhm. taalibe sëriñ Abdoulahat. Mhm. ñu bokk ju dondoo ca daara ja Abdou Lahad Gaye moom na nga moom moo nekk ci sama ginnaaw ak sama staff mm-hmm. eh, groupe bi nga xam te ne yàlla dogal na ubbi ñu kon mooy président bi mm-hmm. moo ko jiite mm-hmm. képp ku ma bëgg a jot boo jaaree ci moom eh, di nga si ci man eh, mu nekk koo xamante nii nag taxaw na ma ci côté yëpp ëmb na ma ci kanam ëmb ci ginnaaw ëmb ci ndeyjoor ak càmmoñ Abdou Lahad Gaye mi ma lay wax mënuma koo fay ndax ànd ak nit ci yàlla rek tax daa jafe ci jamono ji te noonu la ànd ak man day jël alalam sax di ko def ci man bëggul ci man dara lu ma am bàyyee na ma ko te lu ma am jox ma ko kooku nag boo dee wut àndandoo dëgg mi noonu te it kon kooku jar naa sant jar naa gërëm mhm. képp koo xam ne daal soxla ba ci télé yi may invitation yi may am ci yu bari ñu bari eh, eh, bu ñu ma wooyee dama naa leen woo leen ko mhm. lu ngeen waxtaan lu ngeen déggoog man rek mhm. eh, man moom pare tey pare naa pour def loolu ah, ndax wóor na ma ni sama avancement rek la bëgg waaw moom boole soppe yi mu ko àndal yëpp mhm. ma di ko nuyu di ko siyaar di ko gërëm moom Abdou Lahad Gaye numéro 4 mhm. moom numéro bu tey ku ko bëgg na waaw numéro am tey mooy 76 568 568 64 60 568 43 75 568 43 mooy numéro Abdou Lahad Gaye képp koo xamante ni woote nga ci rek mm. di nga am ñu mën a jot waaye am na bu ñu tabaskee ba bis bu delsi ci kàttanu yàlla mm. am na ngont mu mag mu may amal fii ci gaarasu daaru mm-hmm. di ko defal ku ñu wax soxna Busoloo mm-hmm. nga xam ne ñetti bi mooy troisième édition bi mm-hmm. eh, ci buñ tabaskee bis bu delsi xam naa dinaa fi évité sama dinaa ci jokkoo ak moom dinaa ci waxtaan ak moom insha allahu rabbi soobu yàlla mu jéem ñoo jàppale ci image yi ndax doon na bis boo xam ne daal bis bu am solo lay doon. incha allah incha allah rabbi incha allah jërëjëf sëriñ Modou Fall kon mi ngi noonu loolu moo nekkoon seen jataay bi ñu leen indiloon tey fii ci waar wi TV euh, ngeen koy am ajuma bu jot 10h30 jàpp di incha allah rabbi euh, xam naa ñuy jaajëfalaat bu baax a baax ki xamante si rek mooy ba Serigne Bassirou Sylla mu nekkee ci technique bi ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax ci image yi macha allah di ñaan suñu borom yokk site bi euh, ba mu kawe njor ci barke Cheikhul Khadim quant à man sama jëmm dimanche. incha allah bu ñu demee ba 19h jàpp 21h euh, ci 104.4 nañ fa dalal Serigne Mamor Thiam bu jànnatul Mawa foofa lay doon ca rajo Darou Moussa FM 104.4 incha allah rabbi euh, di leen jox rendez-vous incha allah beneen yoon ci suñu yeneeni programme euh, sëñ Ablaat jërëjëf sant nañ bu baax a baax ñu lay jaajëfal macha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah ba beneen yoon incha allah bi jaageen jëf dégg nañ loolu de